asalaamaaleykum mbokku Evidence TV tey seen émission entretien avec dafa am gan gan gi mi ngi tudd Assane Ba membre du commité directeur du PDS bon bokk na ñi nga xam ne moom la ñu mën a tuddee militant de la première heure parce que moom mi ngi dugg ci parti bi 1975 maanaam bi PDS juddoo ba am at ba léegi mi ngi ci dawul tàyyiwul sonnul jaar nekk na ànd na Ablaye Wade ci opposition bi presque vingt six ans ñëwaat moom douze ans au pouvoir nekkaat ak moom ci opposition douze ans te ba léegi fa mu nekkoon fa la nekk bu ñuy wax symbole de la loyauté et de la fidélité bu ñu la nee nga wut ko mën nga dal ci ku ñuy wax Assane Ba boo ko joxoñee kenn du am lu ciy teg Assane Ba ñu ngi lay nuyu tey. Euh, ñoo ngi lay fay Demba di am mbégte lool. ci dalal bi ngeen ñu dalal ci seen chaîne de télévision Evidence TV euh, bànneex bu rëy laa fi ñëwee tey am yéen itam waxtaan ak yow su les questions yi nga xamante ni moo inséré moo intéressé askanu Sénégal. waaw Assane Ba laaj bi ma lay njëkk laaj mooy ana Karim Meïssa Wade. Karim euh, mu ngi Doha mu ngi Qatar comme ni ngeen ko xamee yéen ñëpp jëli fi woon boppam si coobareem il a été euh, envoyé au Qatar par le régime. particulièrement par le président Macky Sall donc euh, loolu moo tax il a été exilé alors loolu moo tax booba léegi muy foofu mais am na ni yaakaar ci incha allah rabbi yàggatul dara euh, mu ñibbi ci Sénégal pour ñu mën a commencer suñu campagne électorale comme yi ngeen xam yéen yëpp ñoo ngi waajal campagne électorale bi euh, ñu ngi xaar le président Macky Sall dal di génne le décret actant la date de l'élection présidentielle Euh, bu ko defee rek euh, parti bi ak euh, candidat bi Karim ñu jël ay dispositions yuy fexe pour mu ñibbisi ak jàmm pour ñu mën def suñu campagne. kon yaakaar ngeen ne di ngeen bokkaat. kattan suñu borom incha allah rabi amul kenn ku ñu mën a tere gannaaw yàlla bokk ci élection yi parce que conseil constitutionnel def def erreur yu rëy rëy rëy en tant que institution juridictionnelle bu defee erreur ñun parti bu mag la ñu comme ni nga ko waxee sànq dañu am expérience de l' xam fu ñuy jaar duñu taal pëna du ñu toj équipement du ñu yàq mais loi yi nga xamante ni moom la ñu réew mi jox li ñu tuddee arme conventionnelle yooyu lañ utiliser ba fii nga xamante ni toll nañ fa ñu toll fa dañu def commission d'enquête parlementaire buy pour saytu lu tax ñu génne Karim wàdd ci liste bi nga xamante ni donte loon nañ ba pare ñu rocce ko ensuite ñi nga xamante ni suñu ay nawle lañu ñu wane ne logiciel wu conseil constitutionnel rocc na fa lu toll un million parce que la ni bokkatuñu ci fichier électoral bi question yooyu dafa laaj ñu leeral ko alors bi nga xamante ni nag tuumal nañu également ay ay juge yu bokk ci conseil constitutionnel mbir mi mbir mi yëngutu bi ñu nag ñu bind seen bataaxal ñu signé ko ñu ne ñoom du ñu tontu benn ndaw ci commission d'enquête parlementaire te amuñu ci droit nag amuñu ci benn droit parce que article 44 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale organique dafa wax la commission d'enquête peut entendre toute personne toute personne amul xaj ak seen amul magistrat amul député amul ministre amul kenn et la loi elle est au de tout le monde elle est aussi des juges du conseil constitutionnel donte ay juges lañu donte dañu am li ñu tuddee privilège de juridiction la loi s'applique à eux comme n'importe quel citoyen sénégalais ils ne sont pas au-dessus de la loi et ça c'est la loi euh, organique qui qui qui qui est le règlement l'Assemblée nationale kon war na ñëw mais ñun du ñëw député itam ñu ni leen bu leen ooyee ñëw leen. amul dootoo am te benn citoyen sénégalais en tout cas député boo xamante ni justice soxla na ko ngeen bëgg dini ne maaraay maanaam li ñu tuddee unité parlementaire donc le président constaté il y a un conflit d'institutions entre l'exécutif d'une part astafurlah entre euh, le judiciaire incarné par le conseil constitutionnel et euh, l'assemblée nationale qui est quand même le législatif bi mu constaté conflit boobu nag ci la taxawal euh, ci la jël décision mun donc dafay waxtaan ak réew mi waxtaan ak réew mi comme ni ngeen ko gisee yéen yëpp couvrir ngeen ko ensuite ñu daal di moom mu ni day woote donc euh, dialogue politique pour que ñu mën yi question yooyu yëpp fexe ba ñi nga xamante ni dañ leen rocci te seen rocci jaarul yoon am na ay candidats yoo xamante ni dina ñëw ku mel ni Mary Teuw Ndaye sam promotionnaire la ñoo jàngandoo sama nawle la mu dem ñu ne ko yow mi kat donte candidat nga waaye sa sa tur sax nekkul ci fichier bi vous rendez compte ku mën ku mën nangu loolu yooyu yëpp nag ñu ni dañ koy saytu dañ koy xool xoolaat ko loolu moo tax véritablement ñu ni Karim niñ ko ci awul yoon parce que le 20 janvier 2024 bi conséquence yu génne décision am di acté la liste des personne des candidats yi nga xam ne dañu war a dem compétition alors dañ ko ci génne te boobu ñoo amoon nañu le décret français bi wane ni Karim Wade il est de nationalité exclusivement sénégalaise. waaw avant ça Karim 2019 recalé ko donc ça veut dire que 2019 amuloon nationalité. ah kay amoon na ko en 2019 décret bi non amoon na ko parce que 2018. décret bi 16 ans waaw maa ñëw rek xam nga administration française ak comme n'importe quelle administration. li ñu rek mooy nga dugal sa kayit. 2018 la dugaloon loolu. acte lettre de renonciation bi administration nag ma na ko mbéj. Karim mënul mbécc le ministre de l'intérieur français mënul mbécc le le premier ministre français PDS mënu ko ñoom ñoo am seen taxawaayu administration ak ni muy fonctionner yéexaay ba ak teelaay ba si ñoom lay dépendre mais ñun def nañ li ñu war a def li kale woon Karim en 2019 du woon loolu li ko kale mooy un seul mot électeur l'article L57 du code électoral bi ñu ma modifié woon parce que boobu nanguñ ko jox donte bindoon na si liste électorale yi nanguñ koon jox sa pièce euh, d'électeur lii moo ko woon mais et pas euh, le fait qu'il ne ah, qu'il n'était pas dañoo xoolu woon lële moo tax ah oui mais du jàll non mais si bu ñu ko xooloon tam noo la jàll rek li xaw léegi moom am ngeen ci responsabilité bu rëy parce que PDS ba léegi moo nekk au cœur de cet événement est-ce que yéen amu leen si quelque part des remords li ñuy li fi jaar lépp non ñun amuñu si benn remords wax dëgg yàlla remords bu amee conseil constitutionnel la il faut ñu il faut ñu duut mbir mi baaram bi ci njombe bi ñoom ñoo deful seen liggéey ñoom ñu indi ay manquement yu bëree bëri bëri benn nanguñu commission d'enquête parlementaire saytu lu waral erreur yooyu def ñu gis ko Sénégal yëpp xam ko il sont justiciables comme n'importe quel n'importe comme n'importe quel citoyen sénégalais muy benn ñaareel ba bi loolu wéyee affaire bi wéy mais gis nga affaire Rose mu admis woon ñu ni moom koo def bokk ci vingt yi alors ñu dem tuuti ñu gis ni moom tam amul dafa am triple wala double nationalité mu nekk coow lu rëy ñu jàpp ko fii yóbbu ko sax prison après ñu lijjanti ko mu génn ñu def ko seen kii yooyu le ah, contrôle judiciaire hmm. ba pare ñun ñu ñu xelal ko ñu ne ko da ngay bind daal pour wane ni daal désisté nga mu bind désisté donc bu fekkoonte ni contrôle bi war am amoon na un contrôle rigoureux te loolu conséquence am na jumtukaay yi conséquence dafa am un un un budget de plus deux milliards am na moyens yi nga xamante ni financier et tout pour contrôler effectivement cela donc manquement yi foofu la manquement yooyu na ñun lañ dut baaraam wan askan wi ni ñii seen liggéey li leen jox dox luñ ko awul yoon tegul si yoon loolu il faut ñun ñu wax ko. suñu responsabilité leen jël ba. à la face du monde et du Sénégal. xam nga leen may ne seen décision sans recours. ñun ñëpp ñu d'accord ci ci règle de jeu boobu Sénégalais yëpp d'accord ci parce que loi la léegi nag bu doon ku ñu recalé rek nga def ni kon élection mën nañ ko bàyyi ci réew mi. mais dans la tontu foofu dëgg la conseil constitutionnel lool la loolu la constitution bi wax. mais day fekk mu tegu ci dëgg. ah day fekk mu tegu ci dëgg. doo gis doo gis nit doo gis nit mu def lu dul dëgg. ba pare nga ne ko donte li nga li nga def du dëgg waaye yoon moo la may ne loo wax rek nañ ci ànd applaudir déedéet lu lu dëgg. dañu wax gaañi lii du dëgg ñu wane ni li tax du dëgg ñu wane ko ba pare ñu askan wi xam ko mais ñu changer ñu corriger il faut il faut corriger et le président Macky en tant que clé de voûte des institutions en tant que président du conseil supérieur de la magistrature est en train justement de mon point de vue ni nga acte yi muy posé c'est des actes de correction erreur yi nga xamante ni conseil constitutionnel def na ko donc ñun amuñu ci benn responsabilité encore une fois c'est plutôt le conseil constitutionnel qui a mis le léegi nañ dugg ci dialogue national bi dialogue bi indi na ay conclusion loolu lan nga ban jàngat nga ci am. bon conclusion yi euh, en vérité euh, man doy na ma. parce que def nañu proposition de date de tenue des élections wala boog de l'élection présidentielle pour le 2 juin 2024 yaakaar naa ni ku am xel ku ne war nga mën a nangu loolu. ndax dañu wax ni article LO 137 du code électoral dafa wax ni diggante euh, premier tour bi ak jour élection bi alors euh, yoon def wax ni il faut que au moins quatre-vingts jours jours loolu mooy parce que dañu tenir compte également ci disposition yi nga xamante ni moo nekk ci code électoral nga xamante mooy loi mooy doxal élection yi. Mm-hmm. donc ñu jàpp date bi. ñu mën a li si war def yëpp ci période boobu dañ ko mën a def sans problème. li ci topp également ñu ni privilège bi nga xamante ni les 19 yi yi ñu leen joxoon jàlle jàll nañ leen ñoom ñu ni dañ leen di maintenir waaye nag dafa am ay correction yu ñu def ñi nga xamante ni ay recalé la recalé lañu wala ay spolié lañu ñoom genre Karim Wade yeeg ñooñu dañuy fexe intégra integrate leen la réintégration dans le droit ñu mën a bokk ci élection yi ba pare ñu ni dinañu saytuwaat nag candidat yépp nag effectivement est-ce que am nañu nationalité exclusivement sénégalaise ou non loolu tam bokk na ci li nga xamante ni moom la euh, commission politique bi acté moom la dialogue bi acté loolu am am solo la ah li ci des mooy euh, jàpp naa ni président nee na dina recevoir les de du la leen di 4 bu ko jot leen lundi 4 moom dina def jàngatam dina saisir à nouveau le conseil constitutionnel pour wax ko daal lii nga xamante ni moom la ñu waxtaane woon njàll bi voici les conclusion mu nee na mu déglu nag conseil constitutionnel bu déglu conseil constitutionnel conseil constitutionnel lu mu lu mu ko wax bu boobaa moom en tant que clé de voûte des institutions en tant que chef supérieur de la magistrature suprême alors dina dina xool naka la koy doxalee ndax dina jëm ci li nga xamante ni moom la jàll bi arrêté wala déet mais may wax fii nii. euh, le président a toujours parlé d'une élection inclusive inclusive nag mooy fexe ba ñi si war bokk ñëpp ñu bokk ci te xam ngeen def élection boo xamante ni ku mel ni parti démocratique sénégalais bokk ci kooku kooku c'est c'est c'est c'est la mort dans l'âme kooku mënul nekk surtout que mu am lépp loo xamante ni war na war na ko am matal na lépp lu mu war a motal ba pare ñu ne non non il faut mu génn te gis ñoo xamante ni ay la yéen seen mboolo feesul potu sardine nga jàllale leen am ñoo xamante ni euh, seen euh, feuille yooyu ak seen ki yooyu def xam nañ nu mu demee am na yoo xamante ni duñ ko nangu te itam yaa a des y a des binationaux par les parmi les personnes qu'on a fait passer kooku duñ ko bàyyi mu jàll. yooyu dama bëgg vraiment mu leer mu leer naññ naññ nañ ba pare am njombe également ci membre yi constitution conseil constitutionnel yooyu dañ koy xool loolu moo tax président. dans son ouverture dafa wax ni moom il veut une élection inclusive il veut vraiment faire en sorte que askan wi dañuy déggoo ñu jàmmoo ñu def élection ci jàmm ak salaam ki nga xamante ni askan wi jox na ko bopp woteel na ko mu dal di folu ci jàmm ak salaam moom buy dem mu bàyyi fi réew bu stable loolu nag wax dëgg yàlla dañ ci ànd ak moom bu baax a baax a baax. mais xam nga dialogue bi c'est pas du engagé conseil constitutionnel. parce que le dialogue n'est pas constitutionnel ay nitu ay acteurs politiques ñoo daje ak ay acteurs religieux jàpp la mais conseil constitutionnel léegi bu bu rejeter lii nan ngeen def. mais c'est une erreur de dire que le conseil constitutionnel n'est pas engagé par le dialogue le dialogue c'est quoi c'est c'est l'unité nationale c'est les forces vives de la nation qui sont réunies le président de la République il est il est il est il est il quand le le président de la République il tient sa légitimité du peuple sénégalais donc moom ci boppam toog bu joxee bu waxee wala bu bindeer engage na réew mi engage leen ñoom seen jëm bopp c'est important ensuite ñi si des c'est des députés qui sont élus au suffrage universel les élus sont plus légitimes que ceux-là qui sont nommés par un décret présidentiel il faut que les juges comprennent que ces élus-là sont plus légitimes que de par la loi mmh. on est d'accord ensuite il y a toutes les couches de la société de notre pays hmm. Il y eu les chefs religieux, la société civile, même si toute la société n'était pas là-bas. Il y a eu la, la presse, vous étiez là-bas. Il y a eu d'autres composantes de la nation. Et l'ensemble a fait ce qu'on appelle les forces de la nation. ñooñu lu ñu lu ñu dëxiñ dëxiñ déggoo ci dafa nekk du nekk d'une applicabilité et orga omnes dañ ko war a saisir parce que loolu du caaxaan bul woon loolu kay duñ ko soxla askan wépp la ñu dajale. tout le toutes les euh, concessions toutes les euh, du du peuple sénégalais. mais est-ce que c'était le moment. oui c'était xam nga lu tax. Mm-hmm. mais euh, Demba dama jàpp ne réew dafa war a dal dafa war a am jàmm. réew maa ngi ci jàmm. non réew mi nekkul jàmm réew mi dafa dafa craquelé dafa fissuré réew dafa am un clan bu nekk fii am beneen oui mais d'accord mais kooku kooku kooku xam nga. mais yaa ma gën a xam tu es un acteur tu es un journaliste tu es tu es quelqu'un qui suit l'actualité xam nga réew mi ñaari ñaari clan la am y a un clan de la paix et un clan qui ne veut pas de la paix loolu mooy mooy loolu mooy dëgg ñiy géex gën di taal dëkk bi di toj di yàq ay mu am ay mordom xam nga ni ñooñu bëgguñu jàmm ci réew mi ku bëggoon jàmm ci réew doo def loolu kon nag na ma di pas que réew mi am na jàmm dal na seen waajur yi ak seen kilifa yi ñoo ngi jooy ba tey les morts xam nga bi bu doon deux mille vingt et un ça pouvait se justifier valablement mais deux mille vingt quatre fii ñu toll nii. mais dialogue à n'importe quel moment peut se justifier parce que dialogue li ñu si soxla rek mooy indi dal ak jàmm à n'importe quel moment on peut justifier un dialogue parce que dialogue bu amee rek c'est parce que am na yu tar yu nekk ci réew mi yu ñu war a waxtaanee loolu mooy dialogue du leneen bon maintenant kenn ku ne ak ni nga koy gisee. ak askan wi aussi. waaw waaw askan wi tam am na. solo askan wi élection rapidement. nekk jàll ci leneen xam nga tey bu ñu amuloon dal yaa ngi xalaat boo génnee sa télévision bi nan ngay ñibbee. Mm-hmm. même boo amee oto booy dawal yaa daan fooy jaar ndax kat réew mi fii dañ fa bare fii ñooñ fi toj fu fee gaañu féete et cetera kon jàmm ak dal dafa baax. Mm-hmm. kon nañ cultiver la paix la paix sociale. Mm-hmm. nañ ko cultiver vraiment ñu déggoo ci loolu. te itam que tout le monde converge vers vraiment la paix la paix sociale la paix des cœurs. loolu daal ñun ci loolu lañ ànd moo tax ñun bi ñu xeex suñu droit. kenn ëpp ñu mbooloo pour génn ci mbedd mi kenn ëpp ñu mbooloo pour saboter mais defuñu ko parce que li fi ne as néew mais le c'est le PDS qui l'a construit du ñu construire na suñu nekk ba pare du ko taal di ko yàq duñ ko fekk ñi nga xamante ne il aspire à devenir également des responsables de la gestion du pays ñoom war nañ xam ne bu ñëwee lu ñu fi yàq dañ ko defaraat rek te les nous avons nous n'avons pas de moyens nous sommes dépendants loolu la ñu war a wax loolu nag moo tax président yaakaar naa moom it euh, ak les forces vives de la nation ñu daje. pour càmbar loolu pour jéem a seet lu ci baax ñu jéem ko jël il est évident que le conseil constitutionnel a son mot dans cette affaire hmm. mais le dernier mot revient au président de la république ah. ah oui parce que mën na jël yeneen disposition yoo xamante ni bu ko neexoon sax du def dialogue bi bu ko neexoon mu xëy jël benn date intuit personnel mu ni date bii mu laa bëgg ñu def élection présidentielle bu ko neexoon mu jël yenn disposition législative pour jëm ci yeneen ci yenn ci yeneen fànn loolu yëpp xam nga li may wax. mais yooyu defu ko il a privilégié vraiment l'entente la paix la cordialité le dialogue des cœurs. et je pense que loolu tam euh, ku ko si jàppalewul waru ko ci xalaat wax dëgg yàlla man ànd mag moom ñun ànd ñoom c'est c'est connu mais nit bu nekkee ci yoonu jàmm yoonu dëgg pour que qu'il y une inclusion de toutes les forces vives de la nation autour d'un aspect important qui n'est rien d'autre que faire développer notre alors loolu yaakaar na dëkk si war a jàppale. yaa ngi wax àndu leen ak moom waaye temps yi dafa mel ni mburoog soow de. <laughs> mburoog soow de Idriss Seck moo fii yaakaar na moom Macky Sall. waaw boobu foofu <laughs> daal yaakaar naa daal <laughs> yaakaar ñun ñoon ñun ñun xam nga man ñu nekk mburoog soow ba pare ñu exilé Karim Wade ça fait ans mu nekk doo mën lu ñibbisi. mën ñu nekk mburoog soow ba pare le président Abdoulaye Wade dëkk dëkk dëkk dëkk point E gii mu nga neen luyee ci boori corniche di fay luyaas fin du mois kon yaakaar naa ni bu fekkoon ne Mboro Sow la ñu fekk na loolu rek dépasse nañ ko non il faut que les gens arrêtent kooku c' est une vue de l' esprit très courte d' ailleurs loolu ma xamal la loolu seen internet yi xam ko tey Sénégal yi xam ko tey. non mais juboo juboo man te ñàkk juboo moo gën a ñàkk juboo. et juboo moo juboo ancien président la République ak actuel chef ak actuel président dañu war a déggoo ci lu ne. waa dëgg la dëgg la kooku kooku la am la mais léeg nga gis ay nit ñu bokk ndeeg baay kii jaar fi kii jaar fële loolu am na léeg nga gis ñaari sœur ñu bokk ndek baay ki aw nii ki aw na le loolu tam dafa am àddina bindoo noonu mais li ñu gënal daal mm. mooy jàmm réew mi d'abord ñu jiital réew mi ñu réew mi la jiital avant que ñu jiital suñu intérêt léegi jàmm réew moom nga ci la ñu duggee amnistie bi mm. léegi projet de loi bi adopté nañ ko ñu ngi koy jëmale assemblée nationale mm. te yow ban gis-gis la yéen sax jotoon def amnistie de. waaw waaw xam nga amnistie moom. Hmm. c'est ça peut provenir des députés de l'Assemblée nationale. Hmm. parce que l'initiative des lois de par la constitution pour provenir euh, de l'institution parlementaire. Hmm. maanaam député yi mën nañ def li ñu tuddee proposition de loi. de même que exécutif bi par le canal du président de la République mën na def également projet de loi. donc euh, c' une initiative des deux institutions. Hmm. benn bu nekk mën nga ko jël mais bii nii. Hmm. président de la République moo ko jël. Hmm. il a pris sur lui de faire une un projet de loi pour une amnistie il rek que les faits de deux mille vingt et ba deux mille vingt trois wala deux mille vingt quatre alors loolu man li mu ci wax rek mooy président am na sañ-sañ boobu. yoon may na ko ko. Euh, li ci test mooy. bu fekkente ni loolu dina tax bu ñu am la paix tranquillité ñu am jàmm ñu dal euh, nit ñi mën a xëy liggéey ni war liggéey société yi mën a liggéey ni war liggéey li nga xamante ni perton nañ ko ci alal ak koom-koom ñu mën ko rattraper jàmm ji am wax dëgg yàlla dara gënu ko parce que nag les guerres les plus meurtrières dans le monde ont fini par être réglées autour d'une table loo gis rek dañ koy régler alors donc euh, yaakaar naa ni loi d'amnistie boobu man day personnellement man mu cracher là-dessus euh, yaakaar naa ni lu am solo lu baax la fexe ba surtout il a parlé de réconciliation des cœurs le mot là il est très important il est venu en son temps euh, booy bëgg réconcilier ay nit bëgg ñëpp déggoo ñëpp am jàmm am loo xamante ni da nga koy jàpp danga koy indi. bu ko def tam ñële itam ñu bàyyi liñ ja nekkoon bu ko defee ngeen mën ngeen mën a daje ngeen am jàmm yaakaar naa ne daal wax dëgg yàlla euh, amnistie loi moo ko loo loo ko lool loo moo ko maye te itam jàmm ak dal réew mi lay indi lépp luy indi jàmm ak luy dal réew mi man ànd naa ci donc je considère que c'est une très bonne chose il faut il faut encourage le président de la République Et je pense que les députés de l'Assemblée nationale, toutes chapelles confondues, euh, convergeront vers le vote, euh, en tout cas à la majorité simple, parce que mon règle est même s'il n'est pas la majorité absolue, majorité simple donc lañ laaj pour que loi d'amnistie boobu ñu baal di koy voté alors jàmm ne ñooy ci réew mi. léegi yow lan mooy priorité pour le moment pour le PDS. ah la priorité de notre parti aujourd'hui c'est de travailler à reconquérir le pouvoir ah nous avons fini de faire euh, les renouvellements yeesalaat suñu kuréelu parti bépp ci juróomi téeméer ak juróom fukk ak juróom ñaar ci commune. Mm. foo ci dem bureau taxaw na fa. boo ci dem bureau taxaw foo koo soxla responsable boo boo boo ne tel dëkk rek xam nañ ku fa nekkal PDS ak ñan ñoo fa nekk ak moom ci bureau bi département boo dem taxawal nañ li ñu tuddee fédération. boo dem ci département bu ne xam nañ ñi fa nekk ñi nekkal parti bi ak ñi ko nekkul parti bi loolu c'est extrêmement important loolu lañ jëkk lañ jëkk def kooku nag li tax ko mooy c'est une réorganisation de notre parti ñu renouveler le personnel politique de notre parti pour que bu Karim ñëwee ñun ñëpp ñu ànd ak moom fu ñuy dem rek déjà fekk responsable taxu di ñu xaar donc organisation boobu nous sommes la seule force politique au Sénégal à l'avoir fait li des yëpp ñun rek ñu am loolu sur les cent 371 partis politiques officiellement reconnus. Nous sommes le seul parti bien ramené. Nous avons une organisation. Et ça, c'est extrêmement important. Et nous avons fait nous avons nous avons fait nous avons fait dans le plus grand respect des textes qui régissent le fonctionnement de notre parti. loolu ñoo ngi si sant suñu borom bu baax a baax a baax loolu vraiment li tax ñu def ko tam moo doon préparé at suñu parti yeesalaat ko mais également tënku. ci li nga xamante ni mooy orientation suñu parti xaar nag le candidat ñu ànd ak moom ñu daal fi campagne électorale bu mucc ayib bu soobee suñu borom alors ñu daal di dem sénégalais yi ñun la ñu xaar fu ñu romb ñu ni ñëbbi si leen ñëw leen namm nañu leen yéen nañu xaar ana Karim yéen la ñuy xaar alors donc Karim mu ngi ñëw je l'ai di ici si seen plateau bi incha allah bu ñu paree ci lii nga xamante ni sumu nañ ko bëri demoo jaay ba lépp leer rek je serai heureux en premier lieu de vous dire, en ma qualité de chargé de l'organisation, de, la mobilisation et de la propagande du Parti démocrate sénégalais, de vous envoyer des cartons d'invitation pour venir couvrir le retour du président Karim léegi ban message ngay envoyé conseil constitutionnel fii ñu toll nii. bon le conseil constitutionnel li mu koy envoyé rek mooy dañ am li ñu de un rôle également de régulateur ils ont un rôle de régulateur Ils ont d'ailleurs dit dans leur dernière décision. Euh, donc comme ils ont un rôle de régulation et un rôle de justice sociale nañ seet la nga xamante ni moom la force vive de la nation arrêté acte ñu jëm ci boor boobu bu ñu jëm ci boor boobu dañu mën a déggoo ak ñoom ñu bañ a bàyyi benn antécédent boo xamante ni daf leen topp ñoom alors loolu vraiment c'est le conseil que je leur donne te ñu xam ni réew mi suñu réew la kenn ëpp lu ci kenn lenn lenn lenn. te réew mi jàmm rek ak dal lañ ci soxla kon kenn ku ne fa nga toog am nga téeméeri say morom yu fa war a toog te tooguñu fa waaye yàlla nag mooy dogal ni euh, benn benn siis moom benn nit rek moo ci mën a toog donte am na fukk ñu xam ne war nañ fa mën a toog waaye yàlla mooy dogal ni benn siis moom benn nit rek moo fay toog kon nañ xam ni foofu ñu toog am na ñeneen ñu fa mën a toog ñu uuteeg ñoom waaye ñoom ñoo nga ci beneen fànn ñoom tam def seen liggéey kon li ñu leen sant daal mooy nañu góorgóorlu fexe ba apaiser. climat politique bi te ñoom ñooy arbitre fi mu nekk nii kon nañu jouer le ce rôle là un rôle de de paix un rôle boo xamante ni dafay indi réew mi ci dal ak jàmm un rôle de régulateur comme il il ils en ont l'objet de le faire bu ko defee ñu génne décision boo xamante ni dafay jëm dans le sens souhaité par les conclusions n'est-ce pas du dialogue national. et mon dernier mot c'est d'abord gërëm leen sant leen ci invitation bi ak également wax ni sénégalais yi ñoom ñëpp nañu gën a booloo bokk ndey bokk baay déggoo ci lu ne te xam ne réew mi dafa soxla doomu adama yëpp mbooloo nit mën na bañ mokk nit ak xalaat comme ni ñu bañ a bokkee diine comme ni ñu bañ a bokkee waaso waaye ñun ñëpp ci Sénégal la ñu am Sénégal boobu ñu am te ñu bokk nag kenn ku nekk na seet intérêt supérieur réew mi parce que bu réew jagal na ñëpp bu réew mi yàqu yàqul na ñëpp bu ko defee ñun ñëpp ñu ànd bokk ndey bokk baay et que le meilleur à l'issue de l'élection présidentielle 2024. waaw jërëjëf Assane Ba membre du comité directeur du PDS ngi lay gërëm ci sa teewaay ci émission entretien avec ñu jox dig daje beneen yoon.